neex la bu xëy damay takk joxe hmm? ah, xam nga problème mooy Adja mantu la. waaw njëkk bu encouragé jar na lu na lu ne jar na lu ne. mbëggeel jar na lu ne. boo waxee loolu mbëggeel ah, xoolal jar na lu ne. bu xeeb sa kàddu de. Ah, ci ma daane la. nga xam fa ma jëm <laughs> waaw. walaay mbëggeel jar na lu ne Adja Ndaak. ba mu des jël sa mbëggeel aju ko ci paaka. ba mu des jël sa mbëggeel dénk ko paaka man damaa yaakaar ne dessinateur bu mag ba te jëloon files ba jam ko ca xol ba di wane ne loolu yu moo tax xale yi ku ci bëgg a génne dereet jël paaka nar a jame ñoom ah, ah, ah. xaw ma xaw ma ku andi loolu mooy dessin ab kër jël files ba nekk ko ko cam ci xol ba piccax ka eh, eh, dereet ga ni say damaa yaakaar nit xale yi comprendre ñu desin ba eh. ñoom seen preuve de l'amour ñu nekk ci toq deret ju xonq bi waaw muy jay muy jay jay dama yaakaar it ñu gis dessin bi dafa ni seen preuve de l'amour mbëggeel dafa war a ànd ak deret mbëggeel dafa war a ànd ak deret dessinateur bu mag baa moo juum moo ñu rey ñu rey ba ñu dee moo ñu rey de mbëggeel yi métti aja la temps bi di lekk temps ñoom am si de xale ah, dañ naan l'amour est une flèche xaw ma la nag voilà voilà lancé par Dieu et capté par la jeunesse yaa ngi dégg ñu ne lañ daan bibi <laughs> waaw wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ah, filees baa ñu tooñ filees ba lañu lañu lañu lañu lañu comprendre filees ba filees bi léegi naaw filees amatul normalement buy dal war tamit déedéet filees amatul ñu daal di andi euh, euh, euh, couteau paaka <laughs> tey tey góor ñi dee te te te te góor ñi jameetuñu man jigéen ñi ñooy jame jigéen ñi ñooy jame. ay waay suñu fit rëy na léegi. xoolal nga xam ni gis nga histoire bii da ngay si yaayu ku góor ki nettali na ba mu jeex te waxul li mu lu doom ji jotee. ku jigéen bi jigéen bi am na problème. yaayu ku jigéen ki wax na ba mu jeex yaa ngi dégg te waxul lu ku góor ki def. ku jigéen ki xam nga lu mu andi histoire bu yàgg. teg téléphone ba teg téléphone ba ndax dëgg la waru dëgg ma hmm. histoire daa am ñu andiwaat loolu. Mhm. gëw ma waaw la ñuy andiwaat histoire bu njëkk ba kii yi nettali jël quatre de temps nettali ko te waxuñu li fi li li jote li boole ku góor ak ku jigéen ki xam nga lu mu lay wan xale yi bëgg nañoo baax waaye amuñu ku leen jubbanti ñaare bi kenn ku nekk nag xoolal woo dëgg ji dangaa jël robb avocat solal ko sa doom te mu ngi wane ni diggante bii ku yeboo génn ci waaw ndex ba tey ñoom ñaar ñëpp kenn nettaliwul sa waajur lu war a déedéet moom la benn affaire teebul maandu ci diggante bi bu paaka bu paaka génnul woon ndax boo déggee seen wax nee nan mhm. ku góor ki même soo ko defee lu metti da lay nëbbal dalay du wax maanaam mi ngi nëbb mbokkam lu ñu joxe dégg nga wax walaay dégg naa la walaay dégg de xanaa leneen lañ wax waaye du àndaat waa baax na waa baax na wax la benn lan kaay ma <laughs> nañoo àndaat waa baax na te yaakaar eh. nga te eh. àndaat bi laa gën a gëm ko taaxalikoo bi man mën nañoo àndaat man yàlla nag ma yay ah yàlla na nga ma yee. <laughs> yaay waaye ki nu paaka ci ngoro. xoolal ci ànd la am leneen du rëy di wax. asalaamaaleykum li ma dégg ma xamee mbëggeelu xale yi. ànd laa gën a gëm ko tàqali ko. barki dem am na histoire bu siiw bu fi am. mooy mm, yow yaay ñu jiñ xale bu jigéen bi daa sàcc portable ya. tribunal la ñu mujjee. bi ñu génnee mm. tribunal dañoo waxaat ni jubóo nañu. kenn ku nekk di baaloonte bay jooy. mbëggeel mbëggeel. Fall Fall yee benn xale bu eh, góor fu mu ne kenn xamu ko. fa am na benn xale bu góor bu ma la paas. waaw parce que dama ne ko fi mu toll nii sama carte mémoire fees na. woo na ma ma ne ko sama carte mémoire dafa fees. attantuma problème. bàyyi ma paas la faa la nga wax moom comme góor la. woo ma yaa ngi dégg. maa ngi dégg fasul yéen tàqali koog madame déedéet moo ma na leen ko jàpp ci loxo madame am far. waaw. ma ne ko ma dama ko nettali ne ko fi mu ne dama feesal man. man feesal bi mu taxawee mooy bëgg na encaissé dara. te ma ne ko jàppal sa jabar bëgg na ko. Ah, bëgg na mu yéen doo dégg yaay. bëgg na gaa yaa ngi xool gaa yaa ngi def lu mu raw lii xale yi di juboo yaa yi di xuloo xale ya dem di juboo ji te yaay yëguñu ko gis nga problème bii bii bii bii bii xam nga fa la doon neexee mm. mooy yaayu ku góor ki wax ni kat sama doom da koo def nangam yaayu ku jigéen ki wax ni kat sama dañoo def nangam sama doom tax mu jël paaka waaye paaka yi rek la ñuy nettali waaye waxuñu ak feewu jam ak feewu jam yi waaye waxuñu lañ jote kon kenn ko nekk kenn ku nekk. dinañu juboo day neex juboo jaay dàq xuloo bi. yàlla nga may de allo aleykum salaam wa rahmatulah. ñuy juboo ba naan ay cocktail. def maa ngi nuyu waa plateau bi yëpp. ñu bu baax a baax a baax. maa ngi seetaan émission bi uh-huh. ngeen di débat fan yi uh-huh. euh, maa ngi di nuyu Tata Ndack dañuy rafetlu waxtaanam tout temps. macha ci thème bi. je trouve que ni da ngeen xaw a seen ak yaayu xale bu jigéen bi. yaayu xale bu jigéen bi. waaw. waaw xale jigéen bi amee. waaw kenn du ànd ak moom. li mu def euh, doy na waar ñaaw na. dëgg la. mais nag euh, xam nga nit ki su amee lu ko metti ñu tëj ñu téye ko. dëgg la donc kooku dañ ko war a defal itam. dëgg la. xam ni doon yaay dafa metti ndax sa doom lu mu def rek. dañ la koy dañ la teg reproche bi. dëgg la dëgg la. voilà. léegi moom dañ ko war a dëfan dëgg la ci naka comme lu ñuy wax euh, voilà xam nga fi may waxee parce que mm-hmm. itam am am na méttit mm-hmm. xaale bu jigéen bi xëy na agir na ak xolam bu buñ ko waroon defaat du ko def dëgg la voilà ak xëy na je sais pas manque d'encadrement te loolu yëpp nañ ci boole papa yi comme ni ko yaay ndaak waxee la maa ngi déglu itam tës bi El Hadj wax ci mais moom tam il a été trop sévère ci ndax xale yaayu xale bu jigéen bi boo dégloo mi ngi naan bi mu demee police dañ ko bëmax mm-hmm. foofu ñoo ñoom ñu banaliser bëmax boobu banaliser ko te loolu c'est très grave parce que ak lu mën a doon ñu ko bëmax ah soxna si man banaliser wu ma ko de non non yow banaliser woo ko yow yow kay j'étais très bien suivi mm-hmm. te li nga waxee noonu la mais Mansour ak Cheikh Sarr dañ ko banaliser ndax bëmax boobu mënoon na ko bëmax mu daanu yem fa te bu boobaa réaction yi du doon benn. Mhm. donc violence moom ak fu mu mën a jógee ak nu mu mën a demee rek surtout nag bu jógee ci homme de tenue. Mhm. day gën a ñaaw yooyu bu ñu koy banaliser ndax jigéen la amul doole fragile na ndeysaan boo déggee ni muy waxee day dem togg jaayi togg pour ñëw joxe. ndax jigéen bi sonn na itam donc euh, il faut rek ñu ñuy euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu yërëm ñu yërëmante des fois. erreur nag du ñàkk mi ngoog des fois comme li ñuy wax da ngay yar ba sonn itam xale bi doxalee neneen. lool la. wallaahi ngeen ma ngeen jéggal ma nag bu dee wax tàmm moo wax. tabaarakallaahu jërëjëf. jéggal ñu <laughs> wax ji am na solo lool macha allah macha allah. jërëjëf jërëjëf. 88 628 89 90. Mantu xam nga problème mooy. yaay yow jigéen kii. yaayu ko góor ki yëpp kenn ku nekk am nga histoire bi xam nga ko waaye boo ko nekk lee xëy na da ngay ñàkk fayda wala sa doom day ñàkk fayda man gëm naa nañ foo xam ne Fall ñàkk koo xam leen jàpp moo leen eh. ko xamoon nañ ko nettali ah non ma yëgal la am na yoo xam ne di nga fekk ñaari histoire mantu ñaari xale yu góor yuy xeex ci mbedd kenn du wax li leen jote ndax bu ñu waxee li leen mën na am police dugg ci man dama ragal ni ñaar ni seq mbir mi ñoo bañ a nettali mbir mi mu parents yi jot ci mu ëpp leen loxo ba tàqale gi di gën a boo gis nag am na loo leen jotee ah man daal xam naa ne li waral nga nekk ci sëy li waral xale bi jëy pa mani police histoire bi mantu mantu mm-hmm. histoire bi est-ce que du moo leen histoire bi ajandaak baal ma histoire bi mm-hmm. wallahi police xam na li leen jote ndax enquête ba mooy tàmbali ci lan nga joteeg waa ji déggoo dama la ni la war a xale ba jëli paak ca seen waaw ñëw waxi jàmm ak ñànk xoloo du indi paaka. déedéet loo xam ne ñun xamuñu ko. mais je reviens toujours à la charge gis nga ndaw si euh, euh, di nañ ko conseil gis nga dañuy wax ni kenn duñu ci gën taal buy takk keddu du ci ji. dëgg la ngay bàyyi ba mu sedd. nga su seddee soo ko conseillé mu dégg ko mais fi ne du ko dégg. wax naa démb ne aleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def. ngi sant bu baax a baax alhamdulilah noo def. maa ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. Karena